jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb nuyooti nañ leen am kontaante ak mbégte comme nuñ leen koy defalee saa su tey nag bu ngeen ñu gisee fii ñu nekk nga xam ni wasaare làmb fekketi na mbër ci bërëb bi nga xamante ni fa lay dóoree waar gannaaw làmb métier la waaye am na métier boo xamante ni làmb dafay jeex sport la boo xam ne da nga ci wut loo yóbbu sa kër waaye gannaaw fa ngay métier yoo nga jàng ko ba dara dul dara am ci xam-xam ni ci waar wi di ci def moo tax tey ñu ñëw seet si benn ndaanaan boo xam ne champion la ci làmb xale la boo xam ne doomu ginnaaw raay la père maa lay siyaar bu baax a baax a baax mbaa yaa ngi am jàmm ak saa moo fi des ci xëy de jaajëfati père bas jëlal sa waaye loolu ci waar wi de Ibou Meke di seeye <laughs> mais yaa ngi sàmbale de Ibou maa lay siyaar ñuy dooli ziar yaan naka tey sant bu baax naka waar yaa ngi sàmbale lii lum lan doon nii lii ma cylindre la Mr Landor mu jëm. Mr Landor li ma yor oto bi. lii moom bu baaxul ak oto bi boo tax boo bësee du taxaw. kon lii moo gën a am importance ci oto. da nga yàlla daf yàlla da laa nga ñëw ci may fekk may defar lu ëpp importance oto muy frein. bu dul frein moom du taxaw. du taxaw. donc coupelle yi coupelle coupelle lañ doon changé. mu laa bëgg sàmbalawaat nii jox booy ñu monté après ñu jublu ci waxtaan bi. si sama doom ndey. <laughs> yaa ma gën a xam ak a njaboot ak a njaboot waaw. am na ci am na ci solo trop. nag làmb boo boo entraîné jee ñëw nekk ci waar wi. non bu fekkee am na amuma combat su ma entraîné ñëw damay nekk ci waar wi bu fekkee amuma combat nag am naa combat du ma ma du du ma liggéey waaw du ma liggéey waaw. su ma. faj 4 mois sax bon 3 mois 4 mois ça dépend ci père rek moo ma naan arrêté ma parce que làmb moom léegi du caaxaan soo amul combat nag mën ngaa liggéey mais boo amee combat moom loo bëgg liggéey bëgg liggéey am na ñoo xam ne dañ lay bëgg ndax lamb hmm. da ngay liggéey bi ñëw bëggal leen. bu làmb ji jeexee nga delluwaat sa liggéey. mbokk yi noonu la demee dégg ngeen ko bu làmb ju tëjee nga delluwaat ci sa liggéey kooku mooy Ibou mécanicien macha allah xale la boo xam ni doomu Pikine la waaye doomu ginnaaw raay la mu ngi nekk ci écurie Père Fallaye Balde xale la boo xamante ni <laughs> dinañ waxtaan ak moom tey waaye dina yëngu dina leex dina yëgo Père Zila Ngok nga xamante ni macha allah kenn du ko werante ci làmb làmb fi mu toll nii macha allah fa tabaarakalla bokk na ci ñi ko téye ñu ngi ñaan yàlla na yàlla xeeb doole père maa ngi lay nuyu. ma lay fay. tey ma ñëw fekk la fii si sa place doom ba relation nga am moom Ibou mécanicien. waaw moom comme sama doom sama doom ñëpp sama boy na si sama doom lañu. ku si am sa xew moom dama ñëw fekk la ma ñëw taxaw percent sama bopp. ñu xam ne waa du si làmb dong. waaw oto ba paane mu dépanné ko. Hmm. waaw. loolu la. mu wane ni xeeboo benn mbër. yow képp ku am licence ak ku amul licence ñëpp say doom lañ ngeen bokk écurie ak nga ñàkk a bokk ak ñoom écurie. boo xasee bu tudd mbër rek. waaw bu amee loo am rek mu am si am si taqrib waaw. daal na fi mu toll amul mbër amul yëpp ñun ñëpp benn lañ ko waaw. moom nan lay waaj eh, ak nan la nekkee ci écurie ba moom Ibou Mécanicien. waa def waram ba mu war waru garam rek lu mu war nga am na entraîné. mën xeex gi ci biir Zil mën a bëre gi ci Zil Balde ban xale moo ko yor ci génération bi fi mu toll nii. waaw moom sax ñoom ñoom génération bu njëkk bi la ñoom ñoom ñoo ko yor yëpp ñoom yëpp mécanicien ñoom ñoom génération njëkk bi ñoom après ñoom Eumeu Sène bañ jógee ñoom Moussa Dioum ñoom ñoo ñëw ñoom génération boobu père mënoon nga xeex mun ngaa bëri. waaw ñoom kala mën nañ xeex mën nañu bëri. yow foofu ñu toog yaatal ko léegi xaaral ma jël Ibou Bass su ko defee ñu def ko à suivre père Jules Baldé dama koy dalal ñu waxtaan ci làmb <laughs> ak wasaare làmb dina neex dina yëngu. Eh, déggu ma. non déggoo yow nga juddoo ginnaaw raay màggee parcelle te mënoo dégg dëkk Pikine te mënoo dégg da war a dégg nag. Eh, man mun naa fecc keroog. non man waxuma loolu léegi da ngay non léegi da nga may wan. léegi man ma dem boo demee ma dem ah jéggi jéggi gi robax. defal defal ayca defal <laughs> fataas re waaw defal waaw rek gi ah gi jéggi jéggi gi robax. waaw gis kenn mën na bax gi jéggi terara da géej géej da géej géej taas ba da ci jar. ayca yóbbu ma yóbbu ma man maay dem sëñ Bass ayca ñëwal ñëwal. Pataas. Eh, rek gi ah gi jéggi jéggi gis rek yoon ah kon. jaajëf lay demee di la di la neex di la. jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb nuyooti nañ leen am kontaante ak mbégte comme nuñ leen koy defalee saa su ñu ngi fii ci pikin seet si fi xale boo xamante ni macha allah kenn du ko présenté ci làmb muy Ibou mécanicien. xale la boo xamante ni mu ngi nekk ci écurie Falaye Balde nekk faa ak ay moroomam Ama Balde Persil Balde yor leen ñu ñëw seet ko ngir waxtaan ak moom ci làmb gisuñu ko ren fu mu nekk combat daaw bëri na benn combat lu bëre ci saison bi te xale la war naa mën a wane boppam ñu bëggoon ko seet waxtaan ak moom xam ci lan la ne Ibou lay siyaar. maa lay fay baa jili jili maa lay nuyu bu baax a baax ginnaaw bu ñu sant yàlla julli si yonent bi ñu ngi sant suñu ñaari waajur di gërëm suñuy mbokk di sant suñuy waa atelier bi di nuyu ñëpp maa ngi nuyu monde entier di nuyu waa Sénégal di nuyu képp kuy euh, suivre Wassare Lamb rek ñu ngi leen di nuyu di leen wax waaw dal leen jàmm. Hmm. Ibou mécanicien lan moo indi tur boobu. waar bi tur bi Ibou la. waaw tur bi Ibou waar bi mécanicien la mais nag balaa maa wax dara damay nuyu sama waa dëkk ñu ngi ko wax waa Mbakis maa ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax di ëtt di nuyu ëtt maam Thiam Dieng gépp aw ma seen fay gis naa nañ ma taxawoo dimanche bi passé tamit dama demoon benn dëkk bu ñuy wax gàddiyel musuma fa dem mais dama dem ci gàmmu gi gars yi jël ma aj ma ci kaw waaw di ma préparé nag bu baax a baax ñaanal nañ ma dugg naa ci waañ bi jàpp ci liggéey bi ñëpp kontaan nañ mais maa ngi leen sant bu baax di leen wax ni kontaan naa bu baax a baax su ma fa jógee nuyu waa ginnaaw raay fa laa juddoo fa laa yaroo comprendre nga nuyu waa Pikine surtout waa ginnaaw raay sama waa kër sama mbokk parce que doomu aadama moom buñ na baax na rek na fekk mbokk yi ñoo ko wax ñii laa am ñii toog fii ñëpp samay mbokk samay doom bàjjen samay doom nijaay comprendre nga ku ci mel ne Ablaye dafa yàgg sonn ci ah. gis nga ko sama rakk la moom maa ngi koy xaar mu ñëw Moussa moom tapet la moom maa ngi ko utal combat mais nangu koo jël waa di ñaanal nag sama benn rakk bu sës ci man boo xam ñoom dañ ko yëkkati teg ko sama loxo ñu koy wax boole de sama morom xam nga ko mi ngi war a bëre dimanche bii di ñëw maa ngi koy ñaanal suñu borom defal ko ndam bu baax a baax di nuyu sama waa garage ndax su ma amee combat bu ñu liggéeyee ba heure bii dañuy bàyyi lépp ak seen tenue la ñuy ñëwee stade or façon oto bu nekk dañ koy dawal mu ñëw donc maa ngi leen nuyu baax a baax di leen ziar su ma limee nag mënu ma lim lépp xam naa ko feeg euh, émission bi di jeex dinañ dinañ continuer lim bi daal. Ibu mécanicien nag benn boyal bu ñu wax Iba gars yi ñu wax ib sax mais Iba mécanicien la mais man ma doon jugee garage di ñëw di liggéey si dama doon jugee Pikine di ñëw di liggéey si garage benn jour ma wàcc 72 heures fan laay am ko quoi ma ñëw bëre daan su ma daanee përee ginnaaw su ma përee su ma daanee përee ginnaaw am benn jaam bu ñu doon wax Demba. moom Pape Diagne benn waaye buy def feeraay mooy papaam saa yu ma daane mooy ma 1000 francs maag sama gars bi ñoroon ànd sëwru waa ak Abdou foofu laa daan ngemboo dem léegi nag mu am ñaari ibaa yu bindu ñu ne waa mais booy bi kan la booy bi kan la ñu kii booy ibaa mécanicien la booy bi liggéey ci ginnaaw fi noonu la ibu mécanicien bi déparé ba pare kii tamit moo am combat moom mu def tiset yi bind ci ibu mécanicien après nag mun naa lu ko yokk taal ci moom la bokk parce que ci set yi njëkk bi njëkk a liir Ibou mécanicien lañ ko def donc bu ko bindul woon mun naa ne média yi duñ ko jàpp looloo tax mu jàpp ko ba léegi mais gars ñi naan Iba la ñuy wax ñii naan Ibou donc noonu la ñëwee man daal hmm. mun naa ne Iba sant mécanicien. waaw waaw waaw waaw ma. jàpp foofu lay jaar ci waaw ragaluma loolu waaw. nga dugg ci làmb kañ. bon maa ngi dugg ci làmb 2013 2014 waaw fin 2013 2014 laa dugg ci làmb. njëkk a bëre sa combat arène. waaw maa ngi njëkk a bëre sama combat arène man colonel Cissé numéro 2 stade Iba stade Guédiawaye boobu kii moo doon bëree grand komba bi euh, hôtel Dior hôtel Dior Gabarsine combat bu métti combat bu neex. hôtel Dior Gabarsine maa ngi bëri foofu sama premier combat maa colonel Cissé numéro 2 ndeysaan euh, du ma ko fàtte mukk Lamine Samba moo ma defoon moo ma def mbër boobu parce que boobu dama bëtt euh, ski colonel Cissé di ko wër ndomb rek xam nga dama defoon ngemb seq mooy ngemb yi ñuy bàyyi ci ginnaaw muy lang affaire boobu cof suuf rek rek Samba ne eh, daanu xam nga après nag arbitre bi dégg ko influencé aussi jox victoire mais par la suite après dañ ko dindi waaw mm. waaw ñu dindi mm. Mm. lamb jooju prince moo ko tëggoon ama ama moo ko taxawal. Hmm. Ama Baldé moom ba ma defee soixante-douze heures bi finalu Ama Baldé moo ñëw ba ci man sama garage ne ma kat yow gis naa ne mën nga bëre boobu dama doon doxantu nii rek dama doon dem géej daw liggéey dem géej contact fekk fa Eumeu Sène bu nekk service de mine léegi gaayan bu mën a bëre sax moo doon dawal Eumeu Sène jamono mi yor Opel bi ma gaayan bi ñu bëre li ma lay wax ni lu yàgg ñu bëre ma daan leen rek mu ne ma yow fan nga nekk ma ne ko man de nekk ma ci benn écurie mu ne ma bul faale instant yi daa xat mais da ngay xool écurie bu nekk bu dal sa xel nga dem fa boo fa demee boo góorgóorloo di nga lekk ci làmb hmm. après ni ma tëddee noonu rek ma gis benn benn femme bu ñëw jox ma bu doon jaay ndox mu ñëw jox ma bu kii siwoon ndox mi yëpp ma ne ko lan la mu ne am benn grand bu la doon seetaan dem na moom moo la jëndal ndox mi hmm. waaw man sant yàlla xam ni kat affaire moom nit ñi buñ la dee gis di la bàyyi xel rek dafa loo xamante ni xam nga hmm. dañ ciy góorgóorlu daal tournoi bu ma njëkk a jël fii laa ko jëlee garage tàngal lañ tegoon maag Tapias ñoo ko bëri woon final xam nga Tapias. Tapias Tapias ànd ak Ama Baldé mooy sotti Balla Balla Gaye léegi laa judd fii laa jàngee métier musuma dem feneen. fii laa nekk fii laa li nga nit moom boo nekkee si dara da nga koy yokk. xam-xam du doy waaw xam-xam du doy damay ñoom baakari ñu may ñu may wan électronique dem lagros xam nga di si waaw yaa ma a xam affaire moom prince comme ni mbëri di amee combat di génn noonu di yokk seen expérience man it noonu laa parce que dama bëgg ñaari yàlla moom ko nattoo muy mécanique bi ak ak ak ak làmb ji te yàlla suturaal na ma yëpp la ma ko mën waaw nit nag mënul mën lépp mais man bu ma tëddee toog sama bopp su ma ne lekk gu ma ci làmb léegi xale bu ndaw laa découragé gu ma dama ciy lekk parce que lépp lu mu bët di def mun naa ko mun naa xeex mun naa bëri te su ma entraîné su ma taxawee ah, eh, amateur duñ ma jëppee. ñaata combat nga bëri arène. sept combat laa ñaata victoire. cinq victoire ñaata defet. trois defet la am. kana la daan. man mbay gi moom a daan. Hmm. mbay gi borom 500 ñebe. waaw <laughs> ñu ngi déggante maa ngi koy nuyu. <laughs> moom ga moom sama sama supérieur yi nekk Gambie sax gis naa la ñu dugal ko estati na ñaari palaatu ceeb maa ngi koy nuyu bu baax a baax. parce que tamit lamb mooy loolu ba ñu bëree ba tey tamit ñu ngi déggante xam nga di seq ay taraanga yoo xamante ni du ma ko ko wax fenn. Hmm. maa ngi koy nuyu a passage mbay gi moo ma daan après kii daan ma. mètre vingt et un non kii seize vingt et après camion daan waaw. Mhm. nga daan kan man ma man ma daan colonel si kii laa daan euh, Bouba Gaynde laa daan daan Bébé Malick Niang daan Leuz daan euh, kii ngéwél gi armée ngéwél gi bu jam ñaajo mujjee daan laa mm. mhm. nga toll ci loolu. ñuy dégg diggante daaw. benn combat nga bëre. man benn combat laay bëre parce que damay taxawal de yàgg nañ ma doxal combat su ma taxawalee ba mu taxaw dem ba ci biir boobu Matar Ndiaye yoraguma bu demee ba ci biir xam nga bëri dañuy xool bu baaxul ñu bàyyi man leer na ma dañuy xool baaxul ñu delloo. mosuma bëre combat boo xamante ni benn combat laa bëre bu diire deux mois muy Lagrosse Moussa Ndoye combat boobu laa yóbbu waaj top cinq mais combat ñu may jox yëpp ay 20 jours laa ko préparé. ki bay bëre yëpp. voilà waaw yaa ma gën a xam yooyu sax yaa ma gën a xam bëgguma ñu koy wane lu bari parce gaa yi xam nga am na ci boo yoo xamante ni dinañ àgg foofu. dañuy daw quoi <laughs> waaw non duñ daw sax mais ngay wax. dañuy wax dañuy wax ci saison nga bëri ci benn combat xale nga war ngaa mën a bëri ñetti combat ci saison prix bi kase bi da ngay lu seer wala promoteur yi ñoo la mënul démarrer. non non man parce mbooloo bi ngay indi ci lamb ku ne gis na ko. boo loolu maa ngi si nuyu en passage Abdou Bakhoum moom sama sama ménagère la woon mais xam nga gars yi dañuy mënante. Abdou Bakhoum moo ma yor ba may am cinq combats presque ma yor mais samay trois combats yi ma mujjee bëre bu baax nag parce que ba ma jàppee ba tey ba ma ba tey rëccuwuma ko. waaw jamono yooyu dangay toogum yàgg rek Matar Ndiaye am combat. ut adversaire du ko am woo Abdou Bakhoum ne ko may naa la combat day fekk boobu moom démarche bi mu war def xam nga lu ma wax ñu ngi koy na jàpp na ci mais nit moom lu métti rek da ngay wax li nga xam ne moom am démarche bu mu war a def pour man ma am combat day ki comme nit ki liggéey par dogo dem doxi combat day fekk ñi nga xamante ni combat rek lañ moo leen ñoom ñu jël lépp noonu la doon demee quoi mais nag léegi maa ngi sant bu baax a baax su ma bëggoon bëre suba suba suba damay boo xam ne ni nga koy mais da daw daaw muy Mbaye Tine numéro 2 seetaan nga ko barki démb wasaare làmb ah, mu wax la yu bëri léeg-léeg yow mag nga et puis booy loolu da koo ragal avance bi mu ngi léewtoo seen kër nga bañ a jël mujj gi sax da koo teg ci diggante secteur ba noonu di xaar foo romb jël. Mbaye Tine maa ngi koy nuyu bu baax a baax Mbaye Tine daf maa faa man su la ko waxee doo ma gëm. numéro 2 parce que sëñ Fallou parce que amul tax xamante nañ bu baax depuis làmb banlieue hmm. xamante nañ bu baax a baax moo mën a 2010 mi ngi woon écurie ñoom Modou Lo jóge na écrit ñoom Modou Lo soog a ñëw fan écrit ñoom tubaabu joor non ñoom ñoom ñoom guy gi waaw jóge foofu léegi dem na fa fële man benn écrit laa nekk ba léegi tax ma kañ laa kañ laa sol blouson làmb Ama Baldé Diouf Ama sol blouson làmb comprendre nga mhm. mbapat moom damaa mbapat ba tas mbaytin bu waxee loolu dafay war ak pour bëgg bëre déglu naa ko nag mu ne moom bëre na quatorze combats am na dix victoire man su ma bëree quatorze combats heure bi États-Unis laay nekk di yónnee sama gars yi appareil électronique ñu ciy liggéey man su ma amoon dix victoire heure bi États-Unis laay nekk di envoyé sama gars yi su ma amee combat ñëw bëre ko. kon da bëgg a wax Mbaye Tine daa tardé ci làmb. non du ma ne que tamit moom seetaan naa ko bon du ma ne dépassé na ma mais man du ko dépassé parce que nit ñi ñuy seetaan dañoo bari li ma koy mën a li ma koy mën a wax mooy man su ma amoon quatorze combats dix victoire moom mu toll man état bi ma toll man du ma ko du ko laaj. parce que man dama jógee si défaite mu jógee ci victoire donc su ma laajee rek am na lu tax mu laaj ma ndax buñ ne Ibou mécanicien ñu bëri xam nañ ma du laaj koo xamante ne xamuñu ko donc dama ciy sant yàlla bu baax a baax te du moom rek moo a laaj am na yeneen mbër ñu laaj man avant may dox sama combat moom ñu ngi doon dox sama combat ak rawaan. rawaan meen bu rock énergie. waaw promoteur promoteur woo pare naa ci lan demee bi ci lañ ma woowaat na ma ba xam bëgg nga mbaytin may leen pare naa parce que man man lamb laa fi nekkal mbaytin mbaytin waxut loolu mbaytin nee na dañoo jël avance bi jox la ngay daw saraxu na la sax en direct wasaare lamb ne Ibou ngir yàlla jëlal ngir yàlla jëlal avance bi barki Serigne Fallou Mbacke sama bàmmeel laa toog du ma wax ci ay caaxaan Serigne Fallou laa yaakaar billaahi wallaahi wa taalaahi woo nga ma téléphone may la booy ñëw waxaalewu ma luñ la jox indaale ko waxuma la ko donc noonu la demee mbaytin wax nañ ma nee nañ ma bëgg nga mën a waaw foofu la ñu yem te tamit nag nit lépp loo wax da nga wax li nga xamante ni boo lëggee bu ñu la taajee nga ne lii man maa ko wax seet si nañ ma woo nañ ma téléphone ki ma woowoon téléphone léegi léegi balaa ngeen di ñëw moom waat na ma. na ma foo nekk ni ma ne ko gars yi waa Wassare Lamb ñoo ma seet si ñu mun a ma yóbbu ko sa gàlle maa ngi ñëw ma ne ko non man maa ngi garage donc amul promoteur bu ñëw am avance mi ngi nii non non bëgg nañ ko nag bëgg nañ ko tabarki yàlla du ma ko waxaale. luñ la nga jël wóor na yàlla ma ko waxaale parce que amul tax ñii yamuma leen quoi ñii ñoom dañ may démb dañ may seeraan sama boobu laay takkal gant wala ñu ñëw seeraan ma contact wala ñu ñëw seeraan ma géej mais dañ may dañuy taxaw saaga yoon waru moon am defet ci làmb mais nag làmb ak defet ñoo ànd. Hmm. da ngay gis mbër bu entraîné ñaan lu def lépp lu ñu war a def mais bu ñëwee suñu borom da koy xañ. loolu danga nga koy nangu quoi man damaa jël exemple rek ci Eumeu Sène neew ma fu mu ñaanu ma yàlla jaar fi mu jaar. Hmm. mais fi mu jaar ki fa jaar maanaam fi mu jaar bu amuloon gëm-gëm tey jii nii lii yàlla du ko ko fay même bu doon benn fan rek lay am euh, euh, roi des arènes mu ñàkk ko sax moom mérité na loolu. waaw ñëpp nee nañ roi des arènes bi mu xam du sens mérite la ci moom. non man xoolal koo wax ci mbëri mu jël exemple ci Eumeu Sène. boo ñëwoon tey fi Pikine boo laajtee booy ñu bëri booy ginnaaw raay lañ may doon benn tubéy laa daan sol dagg fii bàyyi fii mu gudd ginnaaw raay doxee ba syndicat Eumeu Sène buy dem escaf. mu fekk ma may dox tànku neen mu ne ma foo jëm ma ne ko damay xëy moom moom mooy yéegal ci otom ñëw ba rond-point boobu télé bi amagul ba rond-point Dominique mu continuer dem Escaf man ma dox dem garage ma seen moomu. moo tax yaa ngi woon ci tànkam. non moo tax ñu bëri dañ doon wax sax kaay ñu yóbbu écrit ma seen mais nit ki mbër mbër laa am ci làmb duma ko duma ma ko nëbb muy ama seen ama sama gaañ la depuis booy ñoo nekkandoo lépp. comprendre nga soq sama gaayen la lu ma xew la day ñëw teew jat li maag ñoom fu nekk la ñuy dem mais nit ku nekk sañ ngaa wax kuy sa mbër man Eumeu seen mooy sama mbër man lom lambam sax sama gaay sama waa gaay duñ ma may jaamoo comprendre nga donc lamb ak loolu ñoo ñoo mbey mbaytin nag moom maa ngi koy xaar bu fekkee dafa am promoteur wala promoteur bi bi wax loolu bëgg na combat bi gis nga fii hmm? te 100 pour cent 100 pour cent Dóor Marto yaa ngi fi mécanicien yëpp a ngi fi ñu sama ginnaaw arène nationale boo ko waroon tey ñëpp ay garage lañ te fii laay yónnee fii kele dem ñu jox ma ñoom ñu yónnee fii kele ma jox leen su ma soxlaa su ma bëree fii tey da nga arène nationale bi mu dama koy duy ba mu fees te amul promoteur a tëggal te jënd ma ci yow billet samay tëggkat man sama fans booy ndaw yëpp maa leen jëndal billet ak nu mu toll dama daan bëre ba pare sama reliquat du ñëw parce que dama daan lépp dañ ko jënd billet comprendre nga ba ma jox jox ma avance beneen saa nit yoo xamante ni dañuy wëlbatiku jëndal ma ticket donc moom bon maa ngi koy nuyoo passage rek di ko wax ni yàlla baax na dañu leen di yàgg rek jarul ñu yàqamti bu bëggee ñu bëre wax naa ko keroog si groupe bi ñu bokk ñu ñëpp bokk nañ groupe ñëpp ku nekk ñu ngi waxtaan nee naa ko su ñun ñëpp xamante ne mbër bu ñu ne jàkk rek dinañ xam ne ñaar ñii dinañ bëre par force. kon yow yaa ngi Mbaye Tine yéex gaaw da ngeen di bëre. ba ñu waroon dañoo waroon bëre sax bu yàgg. moom daaw su ma juum ana balance la def bu waxee man damaa gëj a bëre kon suivre làmb musuma def ana balance chaque combat chaque saison benn combat la def soit début saison wala fin saison te su ma defee début su ma daanee pour mu amaat adversaire day jafe parce que xam rek gars yi da ngay waaru gars yi léegi yoon bi lamb loolu moo ko yàq. dégg naa da da nga da nga mystique dégg naa soo ñëwee combat lamb ji moo tax booy kenn ñemewul. man bu fekkee bu dee mystique bu dee ay ceddo laa yor pour muy leer. benn booy mi ngi fii mi ngi sama wet toog naa la ko joxoñ léegi yeneen booy ñu ngi gàmmee. mais sama ñoom ñooy mystique ñoom ñooy ceddo mais nag ki nga xamante ni moom moom su ma cadooy laalu sax moom su ma laalee rek na ma damal kooku damay am ndam muy sama yaay booy mi ngi ba Murtani ma koy nuyu bu baax bu baax baax baax kooku mënu ma wax ci moom parce que dama teel a ñàkk papa ma moo ma jëlee ginnaaw indi ma indi ma fii garage mooy liggéey donc mun naa ne su dul moom lii am lii yëpp du ba tey jii nii xale laa su ma deful lu ma war a def fan pas sama benn rakk papa laa doon jotee rek mu fekk ma gàlle door ma donc barki yàlla nii nii yàq sama tele tasaare ko ne ma nag bu dee da yaakaar ne xale nga ba tey ñu ngi lay teg ci yoon màggagoo xale bu ndaw nga bu dee da nga yaakaar ne jot nga sa bopp yaa ngi nax sa bopp kon ma kon yaay yooyu dañoo jafe te que dooma na tur nit ñi ñu ngi koy seet si ma la wax lu mu bëgg maa ngi koy defal mënoon na am complexe man mais faalewul sama li ma am xam nga lu mu faale moom dafa nekk si dëgg lépp lu may def naa ko teg ci yoon benn caddo bi mi nii kii yóbbu naa ko bu Murtani comme mu mujjee bëri mbapat Murtani la kii ak Abdou sama benn gars bu toogoon fii léegi-léegi. comprendre nga kii lu ma am ci làmb bu dee gàllaaj la ñuy wax. nañu wax a kii man moom mooy ñëw rek na ma am teel man entraîné lañ ma sant moom mooy ñëw ne ma am teel sang wóor na yàlla du ma ko laaj fu ma ko jëlee. billaay du ma ko laaj. du ma ko ko laaj xalaatuma ko sax parce que tamit nit boo nekk ak say mbokk te wóolu wóolu nga ba ñaan ñoom hmm. man samay mbokk laa am. samay mbokk la am samay xaritu démb la am sama gars yi ma doon àndal gis nga groupe bi ñëpp ay mbër lañu woon man dong maa ci des donc man damaa war a rayante pour drapeau boobu noonu ba ñu wàcc <laughs> ay ñoom galas <laughs> ah, xam nga mën a bëre galas kenn ko mën a tàmbala saa la. damay wax des fois ni ko ko mën sax lekk ñu ci xaalis. ñi ko mën duñ génn man damay dugg ci groupe dégg ñuy wax ci man loo xamante ni man man man li ñuy wax xam nañu man maa ngi ci biir groupe bi te loolu xam nga loolu la koy wan lu la koy may am sa fula di entraîner te boo ñëwee entraînement ba ñu wane yaa fuus man xam naa ne musu du ma mus a am ci làmb lu yomb. parce que ma wax la ñaari waxuma la gàllaaj mbër boo mënee bëre même boo doole da am problème. parce que boo mënee bëre rek doole rek mun bëre rek mun bëre parce que boo mënee bëre duñ la jox sa morom. dañ la naan kii kat buñ ko joxee maa kii ñoo tolloo maa ngi moom ñii ñoo tolloo doole. mais maa ko dàq ba dañ naan nañ ko jox ki nga xamante ni moo ko ëpp doole ndax mun ko daan jëli wu rëy musuma sumeeku di adversaire yi gars yi nañ xam ne man nag entraîné naa mais samay adversaire musuma toll ak ñoom comprendre sama adversaire musuma toll ak ñoom ci làmb mais nag loolu tamit ñu ngi ciy sant yàlla bu baax a baax parce que fawee nañ ko depuis xale ñu ngi ci géej gi ñu ngi ci syndicat ñu ngi dem fu nekk lépp lu xale def def nañ ko jëluñu yëfu jàmbur sàcc ñu fenn. avant tout léegi budul budul budul Mbaye Tine numéro 2. kan ak kan nga xam ni yéen ñaar bu leen yóbboo arène. Tapha Mbeur maa moom combat la déglu rek. déglu rek def Alioune ma wax la rek. xaaral ma wax la. Tapha Mbeur mën la wax mën la jëf. gis nga boo jëlee Mbaye gis nga wax naa ko fii keroog euh, benn mbër bu ñu wax euh, ndesaan bëri na ci arena tour yi mais léegi mu ngi ci groupe bi mais bëreetul euh, gay naa ko. ñu koy limal ay booy quoi mu ne du bëri ñoom ma ko gis nga tey jii ni man boo ma tàllalee gis nga ñi ma la wax ñooy sama adversaire boo tàllalee Mbaye Tine ñooñu lay wax boo tàllalee rawaan ñooñu lay wax su ma amee Alioune Seye Junior damay bëre ak moom. nee na waaw su ma amee Tapha Mbeur damay bëre ak moom. Arafaas maa ko mën fuuf. Eh. barki sëñ Fallou maa ko mën. jàngoro yëpp dajaloo nañ ko jël cité. Arafaas dama ne la Arafaas maa ko mën laa la wax. Bulldozer bu ñëwee ñu bëree. Alliance Birame bu ñëwee ñu bëree sama adversaire laa la de. sama adversaire laa la wax te dama leen a bind ñoom ñëpp pour bañ ko fàtte dégg nga ma de ñoom ñëpp laa bind. mais nag nit ki du la nga bëgg rek ngay am. di nga bëgg dara fekk doo ko am. mais man su doon sama soog mooy am promoteur man di tëggal sama bopp ah tey jii nii su ma joxee Arafat damay bëre moom su ma joxee Alliance Biram damay bëre ak moom su ma joxee Bulldozer damay bëre ak moom eh, eh, mbëru parcelle bi nu mu tudd sax. Tapha Mbeur damay bëre ak moom. man dama man waaw rawante bu ñëwee ma bëre ak moom. man Iba xamal la moo ma jaaxal. mbëri koo ci laaj xamal lu mu lay wax jox ma père Tapha Gueye jox ma sëñ Bas jox ma di laaj ñoo xamante ne ay mag lañ ci laam mais yow ñi nga laaj ñëpp say génération la. musuma bëree ku ma mag sama kenn rek laa bëree koo xamante ni moom moo mag moom ma defal sutura dafa taxaw ne ma kat booy bii du daan nii buñ ko jàppale mu nekk champion man booy jël naa sama lépp jox la boobu la gëj a bëree na bëree te champion la jour moom maa ngi bëree mbapat du ko fàtte mukk muy bëri arène ma taxaw esat muy bëri jëf jël ma arbitre sifflé maa ngi ci tëggkat yi boobu bëreeguma arène laa la wax mu dóor def jël tàcc ma dëgg ko ci tëggkat yi ma bëri sama premier combat affaire yi demee noonu après léegi ñu jox ma sama combat ma moom. ma ma waaw ma wax ko sama sama troisième la sax ma wax ko sama yaay sama yaay mu ne ma ah xam nga ko ma ne ko ah dégg naa ko nii rek man daal maay toog rek jékki-jékki rek sama xel mi dem ci moom. mën na laa ma wax sama yaay mu ne ma kooku la ma ne ko waa mu ne ma ki nga fi doon waxtaanee ma ne ko waaw ah, mu ne ma ah yaa ko jël ma rek. combat wax ma ñaari minute lañ bëre ñu ngi bëre vingt vingt neuf xaw ma dañoo bëre mi-temps bërewaat mi ma daan ko jour jour jour boobu lañ ma njëkk a la Lamine Samba moom ma éviter woon jongante jour boobu spécial la bëre woon sax comprendre na donc lamb magel amu fi nit ki boo ko magul dix ans magoo ko mbaytin bu waxee maa ko mag maa ko mag garaawul mais buñ ko maag moom suñu état de forme du nekk benn. man fu mu tol nii maa ngi dugg sama vingt huit ans. maa dugg dugg vingt 28 ans waaw donc kon du ma mag am na ci ñoo xamante tey Mbaye Tine boo ko laajoon tey jii dépassé na 25 ans ñun ñëpp ay morom lañ ñëpp ay moroom lañ te dafa nekk làmb boo gisee ñii di laaj ñii ñun ñëpp ay morom lañ ñii sax mën nañoo ëppante doole ñu nekk ci kaw mais ñee dañoo ëpp dañoo ëpp jàppale ëpp tur pour nga mën a lekk yow foog nga daan ñi nga xamante ni ñoom dañoo dañoo ëpp jàppale ëpp tur. ana Ama Balde. ah mu ngi fi. kañ nga ko mujjee gis. sel bu ndaw bi yàggul barki démb rek. waaw waaw. état ban ban état de forme la nekk Modou Lo moom. kooku bukki timis la ku ko dàq sa gétt bul nelaw day ñëwaat. waaw kooku Tambala sa béy la. xam nga li Tambala sa béy. Hmm. déggoo ko mosoo ko dégg. dégg naa sama papa papa Dieng di ko wax waaye xaw ma sax lu muy firi. romb dégg Tambala sa béy ku romb dégg ku dégg ba déggatul koo xamante bu galañ na xaaj. bala waaw mu xam kii bu galañ gi dóore li muy wax koo xamante ni bu loxo jugee bu loxo jugee ut si ko moo xam ne loxo bi bu ñëwee balaa muy egg si moom nan la war a def loolu mooy dégg mbër bu mun a fecc mun na bëre Ama dafa mën a fecc te dafa mën a bëre ñu koy ñaanal bu baax di ñaanal équipe Falla yëpp di di ñaanal sama rak Jacob Balde sama doom nday Abibulaay xam nga di wax yàlla yàlla yokk wér gi mu mun a bu baax baax mais ma wax la benn affaire bu arbitre bi sifflé Ama day dox ci bal ci kii Modou Lo Modou Lo day arrière mbaa mu daanu. <laughs> déggante ngeen lu wër yàlla day arrière mbaa mu daanu loolu maa la ko wax. da koy dàq ni ko Balla Gaye def la koy def ndax xam naa ni desaan Modou Lo daa am jom bu ama doxee ci koom du arrière. laa ma jeex laa ma jeex du sama xalaat parce que boo bu arrière mu duma ko. maanaam lu may ba lu ma koy ñaanal moom lu ma koy wax mooy mu taxaw ama jàpp ko daan ko mais bu arrière bu ñëwaatee da koy jàppaat daan ko ñu ne dàq na ko jàpp na ko daan na ko. te loolu day bari day bari waaw. humiliation day bari waaw day bari waaw. nangu couronne bi indi waaw non loolu. jeex na loolu jeex na tàkk loolu kay moom sawaay euh. waaw ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax nag mu nekk tamit xam nga gaañ boo xamante ni gaañ bu gaañ moom daf ma gëm ndax man xam nga mbër yi moom da ngay ñëw si ñoom chaque jour chaque jour chaque jour mais nag sama diggante moom gaa yëpp xamante nañ su làmb jotee damay ñëw jàpp ci su ma amee combat mu ñëw jàpp ci bu combat jeexee ma dem sama métier liggéey man noonu laay dundee mais ñëpp laay yéene jàmm waa écurie Falaye bi yëpp yëpp yëpp laa yéen a jàmm dafa war a bëre maa ngi koy ñaanal yàlla may ko ndam Seynou Mané Lens dafa war a bëre maa koy ñaanal tamit suñu borom defal ko ndam booy mbëru ginnaaw raay nag dañoo benn groupe bu ñu ubbi keroog maa la dégg sama grand lan mi ngeen ci waxtaan. ñu ngi leen di ñoom ñëpp. waaw ñu ngi leen di ñoom ñëpp parce que tamit mbër amul lu dul goxam. te booy jël nañ initiative boo xamante ni dañoo bëgg bu nit amee combat dëkk biir ginnaaw raay mbëru ginnaaw raay du ñu xaar benn promoteur benn autorité bu ñëw boo autorité bi ñëwee fekk ñu si ñu jàppale la bu ñëwul it ñun ñu ngi ci di jàppalante rek di nuy waaw groupe mbëru ginnaaw raay yëpp ma kenn di nuy sama groupe fans club bi bu baax a baax a baax di nuyu ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp parce que tamit làmb mënul dem sans ñu la jàppale ku ci mel ne Assane Diallo maa la boole ak moom mu daggal ci terrain yi. Mm. sëñ Bas jot na de. waaw sëñ Bas. yow foog ma boole la ak Assane mm. promoteur immobilier Lac mm. grand bu baax. moom la ñu tuddee woon Lac Rose Moussa Ndoye bi. Hmm. Modou Lo da koy seeti gars yu bëri xamante nañ jël bala dafay dem gars yu bëri xamante nañ. di nga ko xam de barke sëñ Bamba. di nga ko xam de di nga ko ah, xam de di nga ko xam di nga ko seeti. laa ilaaha illallaah. Tivaouane Peulh mu ngi kii mu ngi Tivaouane Peulh mu ngi dëkk Kër Massar moom. Hmm. waaw kooku kay préparé rek. so pare boo préparé waaw waaw dina woote <laughs> waaw mbaa yow nga woote rek mbaa nga ñëw ma yóbbu la sax mooy gën boo wootee du la xam ndax du la jël <laughs> da ngay da ngay ñëw ma da ngay ñëw yóbbu la di nuyu suñu benn maire yoo xam nga maire bi mm-hmm. mi ngi ginnaaw raay di xeex mm-hmm. ngir jeune ginnaaw raay mm-hmm. moom nee na politiqueul dafay jàppale waa ginnaaw raay muy eh, maam jaar Pam yoo xam nga ko bu baax baax keroog gis naa la affaire nga def ci lu rafet ñun loolu lañ am loolu lañ xam boo ñu dimbalee rek ñu ñaanal la comprendre nga tamit waaw làmb daal mu ngi suñu kanam mu ngi kanam bu baax a baax a baax beneen question. di la jaajëfal. waaw di ma jaajëfal ma it ma lay jaajëfal ñuy sant di gërëm parce que tamit nit moom mënul mënul wax sans ñi ko jàppale. ku ci mel ne Assane Diallo maa ngi koy gërëm Cheikh Ibrahima Ndoye war nga ko xam maa ngi koy gërëm bu baax a baax waaw sama sëriñ sama xarit gëj na gis mais maa ngi jégalu waa ah. maa ngi nuyu gars yëpp ay ñoom Sowru Abdou xam nga laay sama grand yi ma nekkal fii nii Ousmane Diadji sama patron moom moo ma jàngal métier comprendre nga booy yëpp su ma limee damay juum mënu ma lim ñëpp parce que su ma limee damay juum mais maa ngi waa Gambie di sama manager bi nekk foofu ñu koy wax Paate comprendre nga di nuyu Ama Boga waa waa écrit Serekunda gëm sa réew bi ñëpp maa ngi leen di nuyu bu baax baax di nuyu sama jigéen yi nekk fii ñoom Anta xam nga lu ma la wax ñoom ñoom euh, may mënu ma lim daal mais loo ci mën a dégg waa famille ëtt maam Thiam Dieng maa leen nuyu bu baax a baax waa famille Babou Thiel Camara yi maa ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax a baax a parce que bu dul woon ñoom tey man du ma àgg fii ci làmb waaw ku ci mel ne Baboole sama rak la maa ngi koy bëggee bu baax kii sama grand la kii moom njëkk a defaral tarak moom maa ngi koy sant bu baax ñu naan ko laay Moussa mi ngi noonu ñu naan booy ñu naan ko Moussa Ama. Rahman mooy sama beneen booy bi ñuy wax Boy le deux moom kii la tuddee boppam moom tamit dafa war a bëre nuyu naa gaa yëpp sant naa ñëpp gërëm naa ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp. jërëjëf Ibou mécanicien Babolé kon ren di nga di nga laal. waaw maa ngi koy ñaan suñu borom waaw yàlla na ko yàlla def mu bëri waaw. fekk ci sama mag yi Iba mécanicien ak sama raxat yi Boy le waaw. duggagoo bëreegoo combat arène. non non bëreegu moom. mais yaa ngi mbapat. waaw ah, maa ngi si maa ngi si mbapat waaw. Hmm. waaw di ñaan yàlla. daal nañ la la gëstu ren dina ñëw. waaw ah, incha allah waaw. incha allah maa ngi ngeen jëf mbokk yi dégg ngeen li nga xamante ne moom la Ibou mécanicien wax xale bii di Baye Bolé xale la boo xamante ne moom it macha allah mën na bëri mu ngi def lu rëy ci làmb waaye nañ ko xaar lu yooni yàggul yàgg bawul dara mbokk noonu lañ leen di tàggoo ci tàggoo bi nga xamante ne moo du tàqali ko làmb. kenn mooy dal.